Go! baax na Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye baax na baax na taxawal taxawal taxawal yow programme nan di tëgg doo ngaaka bas jaxate xam nga ngaaka day xaar bas jaxate xam nga ngaaka day xaar way ngaaka day yow bas xam nga ngaaka day xaar yow bas xam nga ngaaka day xaar way ngaaka day yow bas xam nga ngaaka day xaar ñaari xuje ni ay bas xam nga ngaaka day way bi lay ngaaka day xaar bas xam nga ngaaka day way bi lay ngaaka day xaar jaxate xam nga ngaaka day xaar yow xam nga ngaaka day ko ba pare. jàkkaarloo nee nii naa ko jéggale ba mu des. waaw waaw jàkkaarloo ku muy ñaanee dama lay door kas. fii réew mi. waaye dëgg wax dëgg yëpp dootul sa njaay. rafet naa sama waay la loo cay préfet Serigne Saloum sama waay la Motivate them away, Allah. baby.

kii tëgg asiko yi dañ koy dimbali ñu arrêté ndax kii wax dana dégg boppam. jërëjëf euh, ma bamtuwaat ko dama doon wax ne dañuy faral di wax souvent si wàllum liggéey dañ koy dégg ñëpp di ko wax naan répétition c'est pédagogique euh, répétition boo xoolee mooy ñu ñuy jàngale pédagogie mooy jàngat boo xamante ne moom nga si mën a jëlee euh, répétition maanaam mooy. dotation ambulance yo xamné monsieur Lat Diop yàgg na di gis nañ ko ci walum euh, récemment golf amna également yeneen poste de santé yo xam jot nañu ambulance euh, jarul may cité yëpp lu ci jangat juste moy une personne bo xamante niveau communautaire la mais nit bo xamante walum santé goxam ñor nako ko ba à chaque fois boo amee problème santé bu ko yëgee dina s'impliquer alors lu ñu def mooy lu dul santé remercier en tout cas monsieur Diop si effort yu muy def en tout cas de renforcer santé mais aussi di personnel bi utilisation véhicule utilisation également matériel parce que dans nos lu solo euh, dafa ñu remercier tout un chacun euh, remercier également monsieur Diop parce qu'à chaque fois que wàllum santé a besoin ay ay besoin en tant d'équipement ou en matériel quelle que soit organisation boo ko mën a saisir gis nañ dina répondre de façon en assez assez assez diligente en tout cas on remercie tout le monde et on souhaite en tout une bonne fête à tout le monde merci. Thank you. ci nuyoo sama kilifa sama papa muy président Lat Dior mun naa ni kooku mun naa ni kooku politique boolewu ma ak moom kooku man maa ko bëgg am cofeel si moom te yow ma kenn ci moom kon maa ngi koy sant di ko gërëm ñi toog si ginnaaw di nuyu mu le maire xam naa suma ma nuyoo monsieur le rek dina jël nuyu bi teg ko si coordinateur Baara mu teg ko si ñëpp kon ñi si ginnaaw sama kilifa yi sama papa yi su ma damay juum maa ngi leen nuyu kenn ku ne seen tur ak sa sant. di nuyu Modou Faye moom dama koy beral loxo parce que Modou Faye boo xam-xam ni dafa def loo xam ni mooy dafa fekk si la jóg muy social moo tax mu tuddee boppam la jóg junior kon foofu laa yem si Modou Faye. di nuyu sama mbokk yi muy bouclier yi su ma nuyoo bouclier yi rek jël naa nuyoo bi ko ko si coordonnateur Bally yi may nuyu calaw calaw yi su ma nuyoo calaw calaw yi rek teg naa ko ci loxo coordonnateur muy boobee waaw kon maa ngi sant calaw calaw yi di sant bouclier parce que yéen laa tey nag cant la ak ngërëm déglu leen tuuti rek du yàgg tey bisu cant la ak ngërëm cant ak ngërëm tey la njaareem Limaamu Laay président Lat Diop dafay def loo xam ne mosu fee am te nag ma xamal leen njaareem Limaamu Laay président Lat Diop dana na beral loxo parce que ku jël ambulance échographie jox la ko jël fi yëpp jox leen liggéey biir njaareem Limaamu Laay loolu sant yàlla la kon kooku bu la defalee loolu kooku bu la defalee loolu am lu mu mooy lan financement yi di waaj a ñëw te yàggul dara mu war koo indi fii si biir njaareem limaamu laay kon kooku bu la defalee loolu njaareem limaamu laay doo leen def lu sant ak gërëm ma leen wax nag jeunes yi laay gën a waxal mooy manipulation bi nga xam ni dafa am ci réew mi mais ñun dañoo am loo xam ne géejuwaay luñ musul am muy la jóob dama bëgg ñu jël la jóob teg ko foo xam ne musuñoo teg kenn fenn buñ ko defee géejawaay dina avancé parce que la jóob lu dul géejawaay ñoru ko dal géejawaay moo ko gën lu mu am si àdduna kon bu ñu amee loolu duñ def loolu sant ak gërëm Modou Faye yow mu naan la jóob man jarul mu may defal dara xam naa ne lu may defal nag bu la ko defalee rek di ko jox askan bi taman askan bee ma ñoom ndax bi ma amul dara laay dimbali askan bi lu dul seen seen yi man ñoruñu ma leneen lu dul seen yi ñoruñu kon la jóob man dama bëggaat. nga gën a jàppale xale yi gën leen taxaw gën leen jàppale si financement yi ak si liggéey bi loolu rek la ñu bëgg maa ngi sant ñëpp di sant géwël yi élection législative nag dañoo jëm si élection yoo xam ne ngeen bàyyi si xel xale yi dañoo jëm si élection yoo xam ne élection jeune la jeune moo koy gagné mooy lan nañ jël suñu bakkan jël suñu lépp teg ko ci gagné élection législative yi jox ko président la Diop mu jox ko président Macky Sall président la Diop mën a jàppale Guédiawaye kon loolu faaw ñu bàyyi si xel maa ngi maa ngi gërëm di santaat ñëpp di leen wax leen man tay tay tay, su ma bàyyi woon politique tay tay, tey sama xol sedd na buy parce que xam naa ne ñii mën nañ koo yeggali kon jërëjëf jëf bu leen di jaawale way ci suuf. ana ñu bëgg Maodo Faye. ci suuf. Maodo Faye wàcce ci suuf. Maodo Faye. wàcce Faye wàcce ci suuf. wàcce leen. ci suuf wàcce leen. Solar Valley, I'm going to go to the Let's go, baby. Let's go. ñëpp toog a di gërëm ñëpp su may commencé sant gi nag mooy waa di commencé si bunt bi Moussa la maire Mor Wara Gueye maa ngi lay nuyu di la siyaar di la sant gis naa sa jàppale gis sa taxaw waaye lii rek ñu doon xaar si yow ndax li nga doon soo deful nii rek nga bett ñu juróom-ñaari at da nga ànd ak bay di sëy topp ci ginnaawam di ko jàppale kon buñ demee ba askanu njaaram limaamu laay jël la fal la teg la fi du ñu nangu ndogal googu xam ne yàlla moo la tànn nga nekk fii yow yaay suñu njiit fii njaaram limaamu laay Mor Wara Gueye yow yaay meeru njaaram limaamu laay ñu lay ñaanal juróomi at yi ñu la fal yàlla nga sopp li fi nekk lépp ba lépp doon xewal bu loolu maa ngi sant képp koo xamante yaa ngi yeewoo njaaram doomu laay wax naa nem jaar ak sam notaire bisu tey bii nag bis bu rëy la si ñun man 1972 laa dëkk Géejawaay fii yaakaar naa samay maam ñoo sanc fii boobu ba tey suñu borom dogal na bu su ma fee gis ambulance wala échographie musta am kon bu yàlla suñu borom dogalee ba tey jëmi jamono ñu nekk 2022 mu jaaree si jëmm ju baax du naan président la Diop moom nag dañ koy beral nuyoo. di ko sant di ko gërëm ma ne kuy seet ku am vision wala ku bëgg a doxal Sénégal mooy jëmm ju mel nii jëmm la joo xamante nii yaakaar naa ne lépp lu mu xam lu baax du koy wuti ñun ngir kan président de la république koy sant di ko gërëm teraanga gii ñuy defal ñun waa Njaareem la lay gis nañ ko ñun nag dañoo yor suñuy bët yor suñuy nopp yor suñuy xol di bëgg li ñu defal dara mënu koo gën a kawe si dara mënu gën a koo rëy si ñun ndax jaaram limaamu laay yaakaar naa fii nit yàgg na matu si kalandoo lañ lay teg soo amul kalandoo daanaka du abbi ambulance bis ni ki tey loolu ci yow yow mii la jaare jeex kon ñu ngi lay sant di la gërëm teraanga bii nga defar defal woo ko man jaaram li ma laay limaamu laay nga ko defar maire mii di Mor Wara Gueye jamono yi passé jóge na dem ba Kenya di wuti ay partenariat pour liggéey géej waaye jaaram limaamu kon moom vision bi mu am mooy lii defar fii réeroo wuñ ci dara man ak moom moom dafa soxla ndaw bu koy liggéeyal ba ma ko tàggoo jara ma demal fu la de nga liggéey demal fu la neex nga ànd ak moom nit nag booy dugg ci dara dagay ngay am bunt booy jaaree ñun suñu bunt mooy président Lat moom la ñu àndal moom la ñu àndal tey moom la ñu àndal ëllëg bi mooy nit bu la defee lu baax fay ko président njaboot gaa ngi lii nag benn la si mbébét yi lii benn la ci soxla ndax xam nañ ne yàlla suñu borom dogal na li nga waxoon ñun ñëpp suñu borom dogal na ko si kàttanam amuñu dara lu ñuy waxati sama jëmm ji rus naa toog di ñaan dara wala di wax dara ndax ni mu la waxoon yow ñaan la lii nga ñu may dañu koo ñaan nga ñu ko may sa xol bu seen luy du benn loo xamante ni damaa ñëw ne boo xamante ni waaw du benn condition boo xamante ni dañ koo teg pour nga may ñu lii da ngaa xam ne askan bi soxla nañ ko nga may ko askan bi askan bi lii nag du soxla si soxla yi bëri na waaye lépp kenn mënu koo faj waaye dañu lay ñaanaat looñ nga doon ñu jël ndax ñi fi toog nii kenn fayu leen ñoo fi ñëwal seen bopp muy waa marché Njaareem waa marché Maam Jaara ñëpp ñëw nañ xool jël seen yëre teral la ñun nag bu ñu lu baax ñu teral la ñii noonu laa am yow man nga am kon ñii ku leen jàppale doyul rus nañ ñu toog fii naan la président jàppaleel nga bëgg ndax si loolu nga musa nekk musoo see jug sa njabootu bopp gi nekkoon fii di liggéey ak yow muy noonu Mbos Jaxate ay coordinateur Baara ak ak ak ak ak kii Fall lépp lu la waroon ci bis dox nañ ko wax nañ ko ñu loon ñoom ñoo ànd bis bi bis bi di bisu Modou Faye di bisu kenn bisu njaari Limaamu Laay la ñu bëgg laa joom mii ngeen jàpp ko xam ne Lonase bii mu yor ndaw na si lu mu war a yor koo xamante ne askanu Sénégal moo la ñor ñun premier ministre li ñu bëgg mu doon ko ëllëg te loolu mun naa nekk boo doon fi mu nekk nit bu la teralee nga teral ko nit du ragal fa nga jëm dañoo jëm si ay élection muy ñu jëm muy élection yoo xam ne am solo la président jël ko dëkk ko ko moom mu dajoog ñun mun a ma dama am si yéen yaakaar yaakaar googu nag man si yéen ji laa ko am te yaakaar naa doo ko tas ma bëgg nag ñu jàppale ko ndax moom luñ fal moom luñ jël moom ne ko doxalal département Guédiawaye dënk nañ la ko kon bés ni ki tey amatul nelaw amul guddi amul bëccëg lii ñu woote fii ku ragal du ko def li ñu woote fii kuy nëbbatu ñu ko def président Lat Diop yow la ñu àndal tey yow la ñu àndal ëllëg jërëjëf jaar nañ sant ñëpp merci beaucoup di ko jox nuyoo bi mu jàllale ko ci waa mouvement réveil di jox cëram marin bi monsieur Ablaye Ndiaye di nuyu madame waaye di nuyu sama responsable politique yi nga xamante ni ñoo ma teewal njaareem Limaamu Laay ñoom ñëpp gis naa di wax ni gis naa les boucliers les ngelaw ngelaw mention spéciale may risqué aussi. may remercier. gars yi ngeen may ma ma continuer tuuti parce que dafa am communication bu ñu war a jàllale. c'est extrêmement important daje bi bu ñu fi ñëwee dem te bàyyiwuñu fi dara du doon li gën donc ngeen may ma ma développé euh, may nuyu kilifa yi fi teew góor ak jigéen di nuyu ñëpp waaye di beral nuyoo ki nga xam ni mooy kilifa gox bi muy monsieur le maire Mor Waré di ko wax ni kontaan naa ci sa taxawaay. dina taxaw tout touti pour céder ton esprit de dépassement ndax avons nga def affaire politique politicienne sisu am no doxale mais da nga l'heure n'est pas à les intérêts les enjeux de l'heure transcendent nos intérêts crypto personnels et ça je sens et je suis persuadé que vous l'avez compris Je vous la et remercier féliciter Ah. Mamadou Fay mi nga xamanteni mo ñu fi indi aussi mënuma wax ci moom te santuma gërëmuma Modou Ngom bu Sam Notaire ndax suñu xamé am luñ ci dox donc dama koy délo cërëm ci mbir mi di wax ni contane nañu lool way yag nañu dalal ci ay barab waaye lu ci mel ni mëna wax ni bëréwul donc lool dama la ci féliciter yag ñi nga andal ñëpp dina wax ni boo ñëwee fas yéene ànd ak ñun ñu jàppale président de la république liggéeyal sénégalais yi comme ni ñu ko defee tey loolu dañ ci am yaakaar lool te dañ dafay dafay dalal suñu xel ci ne sa ñëw ci ñun dina am lu muy yokk mouvance présidentielle dina am lu mu yokk président de la république te loolu kenn na tablew ko te ku taxaw fii tey di nga xam ne loolu dëgg la loolu dafay dalal suñu xel te waxoon naa la maa ngi lay waxaat ne la yow mën na maa def ak yow parce que maag yow ñoo bokk liggéey mooy dimbalee te xam naa ne yow kuy dimbalee nga donc yow dimbali la mooy dimbali askan wi te loolu gis naa ko seetlu naa ko te jàpp naa ko ci yow donc bu ma déggee nit naan nag ma dimbalil Mamadou Faye day mel ni danga naan maa na nga ko liggéeyloo rek ndax moom soxlawul ndimbal moom soxlawul ndimbal da nga naan liggéeyloo ko moom soxlawul ndimbal moom mën na boppam am na métier am na ay affaire am koy doxal balaa mu may xam li mu soxla te ma xam ni loolu mooy priorité loolu mooy li ko ñor mooy luy dimbali askan bi te loolu liñ fii indi tey wane na ko fay donc Mamadou loolu sentir naa ko xam naa fan la la nit ñi tollu loolu mo mëna tax nga mëna dajalé mbolo mu toll ni nit ñi am engouement bi ndax nit ñi nit ñi dofuñu nit ñi nit ñi nit ñi dofuñu ku leen amal ndariñ xam nañ ko te doomu dama kenn du ko doyee dara luddul ko talé nga dimbali ko donc na la woor ni dinañ la japp dinañ la jappalé dinañ la japp dinañ la jappalé monsieur maire ma ngi nuyu sa délégation yépp aussi ñi nga andal ci maire bi yépp ñoom bas ak ñi fi nekk ñep dinañ la japp dinañ la jappalé ci suñu kendo lay katan ndax sentir nañ ci yow deggu sentir nañ ci yow ngor man euh limay wax dama koy dama damay mën a seetlu nit damay mën a xam nit yow dama la ñëmé dama la ñëmé ñëmé na la té lool duma ko waxal ñëpp ngor gogou yalla nuko yalla suñu borom téel ñu and dox mu doon njëriñu way mu doon njëriñu Sénégal mu jur njëriñ ñepp fekke kenn baña a leneen li moy merci merci nga xamni tew na fi tay ak équipe médicale bi nga xamni ñepp bu ngeen nañ ko and nañ ak mom di nuyu le président des délégués de quartier ah, di nuyu le président également du mouvement Ansardine gis na ko fi légui du nuyu bépp président groupement bu fi teew moo xam GIE la moo xam GPF la mo xam mouvement le monsieur Mamadou Fay maa ngi am mbégte bu baax ci yow ci doxalin bi nga doxalé ak ci ni nga ma boolee ci teraanga du yatu ji nga xamné ne loko kenn lu dul sa communauté ak sa askan. euh wa Njaareem ma ngi leen di félicité bu baax ci mobilisation bi defe naa ne jeunes yi kenn desul. jigéen ñi aussi tamit kenn desul loolu dafay firndeel ne lii ñu leen di jox xam ngeen ko te it nitu teranga ngeen moo tax ngeen ñëw delloo teranga suma frère Mamadou Faye ak suma frère le le le directeur général Lat Diop ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax. jotaayu tey bii nag jotaay bu taarix la mm. euh, ndax li ko waral dafay xew-xew boo xam ni musu fi am. Mm.

Euh, li am tey nag betul kenn tey dañu taxaw fii pour célébrer euh, li ñuy wax patriotisme ak générosité loolu nag mu jaar ci loxo koo xam ne ni donateur la mu teg ko ci beneen loxo donateur kon kenn kenn umpulewul ne don boobu ñuy joxe faw mu egg ci loxo bénéficiaire yi ci anam bu rafet rafet tàccu leen loolu waaye kii moo nekk ki kon loolu ñoo ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax

bëgg na aussi tamit jeunesse am njaxlaf ah jeunesse bi nag bu ngeen weeree ànd ak njaxlaf am ay contrat te lii dara amagul ah na ngeen góor nag orientation yi président joxe orientation yu am solo la parce que marchand d'illusion yi dañoo bari ci dëkk bi dañuy jaxase dañuy wax lu amul te suñu réew mi xam nañ ku ko mën a yor ñun ñëpp xamante nañ ñoo defandoo daara ju kawe ji fii ku ci nekk lu waay xam rek ak lu waay mën rek xam nañ ko

pour réitérer, pour réitérer la grande victoire du 23 janvier, pour réitérer que le 31 juillet, Inch'Allah. vivre vive la coalition Ben Boko Yakar, vive le président Lac,